c'est un mal pour un bien puisque avons un immeuble de Fayaga marché de dafa euh, il paraît que a expiré depuis 1995, depuis 2012 kon a na bon man maa ngi am sama Le téléphone Le euh, euh, jour où nous ko inauguré c'était en 1930 ou 1933 je pense donc cela veut dire que a na bon sécurité est pour moi, moom importance puisque nous avons ne dafa de kenn nous avons lay daanu mieux vaut bon ñu défarat tu vois djema renouveler man noonu laa ko gisee quoi oui. waaw liñ liggé won nga ngor yi gis ngeen ne respecté nañ ko demandé won pour ñu yokal ñu quelques jours bi nga xamné dañ doon tabaski ci sen village mais malheureusement may ñu ñuko xamna dañ doon xalaat né temps rek lañu djema gagner mais parce que ñun ñoo waxoon si kanamu askan bi yépp ne nañu may ba après tabaski et que nguur gi deux jours lañu ñu après tabaski euh, def nañ le tout ba respecté ko malgré que jafé woon na. jëloon nañ les devant waxoon nañ leen ne nañ def le tout ba nga xam ne samedi bi dinañ au plus tard dinañ mën a jël seen bagage pour rejoindre seen cantine yi nekk champ de course léegi ñoom it def nañ ko def nañ ko le samedi ak le dimanche def nañ ko bu ñu tabaskee rek dañoo bàyyi foofu seen kër yi daw ñëw kon nag respecté nañ ko kon nag état bi la ñuy demandé moom it mu respecté engagement yi nga xam ne jëloon na ko euh, par rapport ak commerçant yi euh, devant le devant le peuple euh, point yooyu dafa pour que trois points trois points la benn bi évacué nañ ko Euh, mu des deux points mooy euh, euh, con engagement yi nga xamné état daf ko wara jël mu nek engagement yo xam dañ koy bind dañ koy bind pour jox ko commerçant yi euh, nga xamné dañ koy téye pour que dans deux ans ku nek day ñëwaat fi fekk marché bi paré ñu mëna jëlat sen place parce que lu ñu bëgg engagement yoy parce que état xam ngeen nek fu nek mëna changer à tout moment euh, les hommes passent euh, mais les institutions demeurent mais nag actuellement su nekkee amo ben këyit ki nga xamné ñëw na fi. mën na ko bañ a engagé léegi nag kayit boobu mooy nekk sa garantie bi nga xam ne euh, day wane ne ada continuité la ak lu koy jëloon moom dina ko mën a respecté. bëri nañu jox ma yàqu-yàqu am ñoo xam ne newoon nañ seen bagage newoon nañ fi doo julli ji woon ba léegi ñëwaguñ xam naa ba ñëwee fekk nañ ay bagage yu bëri xam naa ñu ngi ci biir di génne seen ay bagage waaye tamit kenn mënu ci dara ko am tamit état bi dañoo jaay doole waa mais sant yàlla rek dañ ko bàyyi lépp ci loxo yàlla yàlla moo ñu ko moyoon tamit bu ñu xañee dañoo xam ne moo ñu ko xañ kon dañ koy sant yàlla bu baax alhamdulilah. moom euh, commerçant yi man maa ngi fi woon ba démb ba 17h ba démb 17h euh, ñiy toj mais commerçant yi fi nekkoon yëpp ñëpp génne nañ seen bagage ñi nga xam ne dañoo bëggoon récupérer seen i porte seen porte yi nga xam ne dañ ko bëgg en cas fa ëllëg rek xëy na ñoom ñoo jotul am pour ay porte mais liste des moom su nekkee bagage moom benn bagage desatu fi moom. benn bagage des fi ñëpp yóbbu nañ seen i bagage ñëpp xañ nañ fa mais seulement li ñuy mooy am na cantine yu xat trop. parce que cantine deux mètres carrés moom xat na trop ñu bëri ñu fa installer seen bagage surtout les tailleurs nga xam ne seen machine yi ñu fa loolu laa la ñu de problème à part su nekkee quantité bi moom li fa nekk euh, doy na pour mën a contenir ñëpp. fii laa nekk fii laay jaayee waaw tey laa ñëw doog a gis fii te man xaw ma fenn fu may Sandaga man depuis ba ma doonee ba ma feree soow ba léegi fii laa xam ak samay mag ak samay waaju fii laa xam yéeme na daal yéeme na de. yéeme ne moom torop waay nu ñuy def comme par moom lii lañu bëgg yóbbu nañ ñu feneen nañu dem toog foofu xaar fa yàlla ba xam dina mel ni fii moom nu mel ni fii moom gaw naa gaw ma mu gaaw a yoom ndax fii ko wax ñu ne Sandaga ndax sàndaga dafa am baat sëñ Fallou daf fay ñaan koo wax marché sàndaga lay wax xawma nag fa ñu jëm ndax dina tane fii waay ñun fii lañu ñu xam fii ba ma feree sow ba léegi fii lañu xam difi daan suñu doole di suturloo fii la ñuy yóbbu suñuy waajur ak suñuy njaboot fii la ñu xam daal xamatuñu leen lu ñuy dem ndax fi mu nekk moom pexe jeex pexe moom jeex na ndax fi mu ne moom béy wéy na mbuus. waa nekkoon naa fii di jaay sama cantine tamit bokk na si ñu ñu yëkkati waaye euh, en plus de affaire bi tamit métti na méttiwut ndax tamit si lañ am di suturoo suñu njaboot sàcc ñu wuñ defuñu dara. waaye euh, xam na marché dafa nekk foo xam ne foo mu nekk arrêt foo foo xam ne ñëpp dinañ ko gis ñoom ñëpp dinañ fa jaar waaw euh, fi ñu bëgg a tamit baax na baaxul ndax fi ñu bëgg a yóbbu fi ñu yóbbu nii maanaam dafa ruqe daal arrangé wuñ ñun commerçant yi yaakaar naa ne fii moo ñu gën a arrangé te en plus mu koy dindi te côté bee la waxoon lay dindi jékki-jékki boole na ci côté bi yëpp ba suuf nam nee na côté bi lay dindi marché bi alentour marché bi lay dindi léegi nee naa côté bi yëpp la ci boole alentour bi yëpp la ci boole te alentour bi yoonam na aussi mënoon naa li ni defar marché marché baa ngi nii depuis sept ans ngi nii ba mu lakkee ba léegi depuis sept ans ngi nii kenn kenn defaru ko bëggoon naa daal bu leen i bu leen i yëkkate ñu teg leen foo xam ni dañu fa mën a gis seen bopp mais comme li ñuy wax souvent rek yàlla mi ngi fépp foo nekk tamit yàlla ne fekk la fa bon fi leen fi ñu jëm yal na leen yàlla dimbali ñu am fa seen xew am fa seen